Euh, génnub àdduna Père Balla Gaye waaw moom di ko dal lu jaas kenn dëkku fi kullu nafsin kullu nafsin saxati mawti bakkan mos na mos dee ñu di ko ñaan yàlla yàlla xar ko àjjana rek euh, génnub àddunaam yow bokk nga ci ñoo xamante ne génération te nga ak ñoom euh, lan nga ñu mën a fàttali ci moom waaw bu yow ban ànd nga judd yow 91. 91. Balla maa nga xamante ne moom en 1979. boobu sunu passion cinéma la woon ma dem seetaan benn film bu ñu wax La Fureur de vaincre et benn film Bruce Lee affaire Bruce Lee ah parce que style am ak esprit bi mu am. dugguma may naa naa naa nag sport sport pour un combattant ma commencé ñëw géejuwaay te daw ci plage bi fekk ko moom Alioune Seye daaw da Fall papay euh, les de double les ak euh, grand saakees bu mag boobu j'avais 19 ans may entraîné ak grand saakees bu mag bëri dóor xale laa ñoo ne pare sàkkees na Balla Gaye booy bi loxo yu neex la yor Balla Gaye ko ban booy mu ne ko booy bu ndaw bi Balla Gaye booy Balla ko booy bu ndaw bii booy booy noo tuddee yow ma ne ko maa ngi tudd Balla Bey mu ne ma sama turandoo boobu xamoon sax moom mooy mooy Balla Gaye parce que boobu du xam nga maa ngi doon seetaan cinéma di entraîner pour pour pour être un combattant ci kaw loolu nag mais ñoom di entraîner nag ba quelque temps jox ma avance indi ma avance ci loxoom moom sax moo ne mën nañu mën a wutal combat Sayer Thiam dafa gaañu moo doon séménagé mu doon ma combat arène bi ne géej waay boor Canada ci benn ay bu ñu ko jéey il pesait quatre-vingt cent kilos quelque boobu te boobu amul sax quatre-vingt kilos ma kawutee waa ji ñu may ma quarante cinq francs ci biir làmb ji léegi nag gu affaire bi nag commencé mu dugg ñu indil ma euh, comment dirais-je Georges Marcel bu Fass ma daan ko ñu indil ma Ndiouga Dia daan ko en 1982 Espagne organisé coupe du monde. fekk ni boobu daanu na ci maam góor gi dem Espagne ma jël bi avion Dakar Barcelone jël Iberia dem fekk ko kon suñu affaire dafa yàgg maak moom sama début làmb fa laa jaar ci moom te bàyyi naa ko ba jóge naa senegal dem fekk ko te boobu ci vingt et un bu ñu doon wax loolu émission bi du jeex sama ko mag Moustapha Gueye Robel 2 sama ko mag Dame Souguer sama combat ak Manga combat yëpp écrit laa ko entraîné ñoom ñoo dara moom Balla Gaye Alioune Sèye Mohamed Ali kon sama diggante ak moom a bu sori la li ma def nag moo ko ñaanal yàlla yàlla yàlla yàq xale ko àjjana parce que kenn fi ah adduna villa yeeg virement bancaire yeeg véhicule lépp lañ koy bàyyi on n'a jamais vu un coffre-fort sur un corbillard lépp lañ koy bay moo tax xale yi nag ci làmb di leen digal moom mystique bi ñuy def ak sacrifice yi ñuy def nañu sóor dañ leen tàbbi nañ dugg ci bàmmeel mystique yi ñuy def ak sacrifice yi ñuy def nañu sóor dañ tàbbi ci bàmmeel bàmmeel lu jar lu bàyyi xel la kenn dëkku fi man toujours maa ngi waajal Bakhaya Bakhaya Touba toujours maa ngi koy bàyyi xel parce que man bëgg naa fa lañ may yóbbu waaw yàlla na yeex mais toujours maa ngi koy bàyyi xel parce que day day bette day moom yàlla day jël liir day jël adulte day jël màggat waaw moo tax booy yi seen musique mi def nii nañu bàyyi xel nañu tàbbi ci nañ dugg ci bàmmeel succès jaru ko luy succès non non man mooy bëre men ngeen ba laay takkar takk benn indi benn butéel nga taw fit laay bëree gëm yàlla mais loolu mooy lamb mais jël vingt mille vingt vingt millions ci ay sëriñ fay ko cent cent vingt mille francs cent mille vingt millions jël même million bi sëriñ ngir ngir ngir honneur lamb honneur lamb boo dee ñu fàtte la fiis merci